ay ca bàkk ba jib dema yootu la tribune yéen i kay groupe des médias nee président ani rek lan la nam ani lu président xew la jamono ji dama ni lan la xewle laa la wax ba yëngal sunu magistrature bi ndax ñëpp xam nañ ne kat sàll ngaari lam tooro mi du def ci daraay neen kon laaj baa ngoog ani lan la xew la ba teg tegg gi nga xam ne mu ngi koy amal sunu magistrature Sud Quotidien ni wax ji wax ji mooy président Macky Sall dafa baatarawaat carte gi daal di baax bi cour suprême Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly daal di tëpp mu andi ñu def ko président cour d'appel bu Dakar Amady Diouf daal di tëb ma yootu Walf Quotidien nee na kon la justice de fu mu nekk nii dañu ko salfaañe comme njàmpe ñax l'observateur ni yër ma rek nag ma wax la mbiri secret nga ca ah kay lu ca nga sa secret bi du lenn lu dul ñaar ñii Ibrahima Bakhoum mi ak Abdou Karim Diop le Quotidien ne déet bu leen ko yàkkamti nanu ko benn benn rek nag ñii di déglu dañoo bëgg xam ani classement bi fu mu féete bu mu am benn chevauchement le Quotidien ni kon cour d'appel mu yóbbu fa Amady Diouf Siré Ali Ba mu yóbbee ay bagaasam cour suprême tribune yéene kaay ne waxu ma ba tey de sama laaj dama ne amul tontu ani lan la président Macky Sall mii di ani lu tax mu baatarawaat carte gi ak fii réew mi toll le témoin nii maa fekk la police bëgg kaay rek ma wax leen ani lu waral kon classement bu yees bi ani lu waral président Macky Sall baatarawaat carte gi waaw Amady Diouf mii moom la ñu yóbbu cour d'appel moom rek moo war a jàkkaarloo opposition bi a dugg séeraas abattoir Ibrahima Bakhoum moo dikkaat ñëpp xam nañ ne kon ala accu Abraço! bu jappé du bàyyi te ragalul dossier le témoin ni may mama ma Abdoulaye bami mi dañu ko fi jële ndax nak antanul benn dossier Ousmane Sonko bi ñu andi Moustapha Fall def ko TGI hors classe bu Dakar les économies ni ma am ngeen procureur bo xam ni donay la jot la de amul dellu ginnaw day bañ na malaw bañé du gis les économies Abdoukarim Abdou Karim Diop lay wax ci bopam il est présenté comme quelqu'un qui ne recule devant rien ak der la la wax ni dara jaaxalu ko Ibrahima baxum ñu né mom dossier lu mu tang tang ak lu mu metti metti rek buy tegu si table mu koy gérer nice laa la wax ni good fine da koy gérer te bal du tàkk géej gi du ñu ne waaw Siré Ali mi mooy kan moom mi ñu def patron cour suprême mu ne kii mooy zéro faute la place qu'il mérite yéen bi nee na waajaa ngi l'info nii info bi kay des na Ousmane Diagne mi nekkoon avocat général cour d'appel bu Dakar moom la def avocat général bu cour suprême tribune yéen ne ba léegi waxu ci magistrature bi dama ne waxagu leen ma ba léegi ani lan lay nas waaye su yee boo ngeen xam ne yéen ñu tab ci classement bi bu leen fi signature tegee it bu leen fi am bind tënkee jàpp leen ne kon it seen kàddu yéen a ko moom bu leen nangu mukk leen def ay xuusuma ñàpp di leen wax loo jaar leen fii ak dëju leen toog yéenekaay bi nee na fexe leen ba fu leen dëgg fekk na leen fa baax loo leen war a wax wax leen ko te bu leen ci nëbb dara nag ndax fii réew mi toll loolu la laaj critique yéenekaay ne fii réew mi toll koy dafa critique sax ndax mars bi ñu xam ne moo ci am biyee boo ñu xam ne sagar mu nga cay xeeñ mambay ñaaw Ousmane Sonko bu ñu ci waxul de gi mën naa déborder alerte yéene kaay ni dara du xew laa la wax dara du yëngu tuus dara du xew ndax président Macky Sall nee na dootul may dara Le Soleil yéene kaay nii dëgg rek nga wax nag laa la wax président Macky Sall nee na la woon woon na te nguur gi fi nekk nii takku na taxaw et il fera face sur soi ah, nee na Macky mer na de ah kay yéene kaay bi nee na Macky mer la def nee na nous ne laisserons personne faire du n'importe quoi dans ce pays te nag faw waajur yi xam ne nguur gi du dugg ci kër yi di yar xale yi faw waajur yi jël seeni responsabilité yar seeni doom ndax jooyi xale moo gën jooyi mag vox bàyyiwul de nee na sunu diine jii dañu ko mooñaale sunuy tarixa ñun lii lañu xam te lii lañu am lii moo andi jàmm ci réew mi ku gis leneen jëlal dem foo xam waaye nag fii ci réewum Sénégal duñu nangu mukk salfaane sunu diine ji ñàkk wekk sunu kilifa diine yi loolu duñu ko nangu Omar ci la témoin njiital PLD ànd suqali nee na de lii rekk nag mooy dëgg yootul vox populi ministre Omar nee na Ousmane Sonko mii ak waa Pastef jot nañu tëj leen seen ab ànd seen projet bii nga xam ne defuñu lu dul teg ba a bi ñu fi dikkee ba léegi lu ñu daanul dégg rek ñu def ko bac ay saaga xale yi di ko fowe ci ñoom lañu ko déggee yàq der gi ci kilifa diine yi ay nit nekk ca biti réew yor seeni vidéo rek nag di saaga sunu xalif yi kenn sañatul wax koo sa laaj mu ne damay bañ ko yàq sama der wala ku ma saaga wala dama am njaboot bi ñu jógee ba léegi lañu ko dégg te politique yàgg naa am ci réew mi kàddu gu nekk dégg nañu ko fi waaye xeetu doxalin géegu yees la te du lenn lu dul ñoom ñii jeexal nañ fi respect ñu ne la wax ñun leen di bàyyi ñuy def nu leen neexee fii ci réew mi bee boo ñu xam ne jeex na tàkk nag Seydina Issa Thiaw Laye coordonnateur bu appel bi nee na agenda politique bu waaye manti am bie boo ñu xam ne bu fekkee dafa nar a yëngal réew mii waay waay duñu ko seetaan waay le mandat ne ko njiitu réew mi fekk na kilifa diine yi de nee na lii nga xam ne moom la ñu sumb ci réew mi ak jàmm daal di fiy sax ñàkk a gi daal di fiy jógee lii ñu rax ñu seppi sànni nee na doxal leen si ba kenn laal leen mission bi dama ne doxal leen si réew mi dafa am ak njiitu réew am na ngornement te l'état doit rester fort wax bés bi la journée kon bés bi dikk askan wi dañuy wuy ji wooteeb Seydina Issa Laye 143e appel bu laayeen yi boroom aaji laay dama ne tey ji lañu ko jëmmaal bés bi la journée kon tey rek ñu dikkaat ci histoire rappel bi visite waat histoire première xalif bu laayeen yi taawu maxdi bi direct news ne xajal ma ba jàll tey na lépp weex dama ne jàmm day weex na lépp weex ndax jant bu fenk na soow lii mooy histoire bi 1843 ñu dellu ca gannaaw diggante maam Alassane Thiaw ak maam Kumba Ndooy turu limaamu daal di bés boobee ci diirug ñetti fan ndoxum géej gi sa yoof am beneen gu lewet doom mboolem ku fa juddu nga am tur bu ñu mel jàppal ni màggoo ndax tur bi benn la mënu ko woon a bokk ak kenn borom aji boo daay laahi nee na wuy ji leen wooteeb sunu borom ndax jant ba fenk na soow kàddu gi la yëkkati xale yi def ko diiraan ñii naan wérul mu dox wutali géej ne leen yéen a ma xamul de waaye géej gii xam na ma mu samp ne ko dellul ginnaaw géej ga di randu dellul ginnaaw géej ga di randu ginnaaw géej gi dégg ndigal randu mu daal di fay samp jàmm laay hôtel bu Seydina Limaamu Laay ba tey jii géej gaa nga fa dégg ndigal puusul randuwul fa mu ko tegoon fa la tegu ba léegi kéemtaan dëgg nag gaa ñi ne jàmm day weex de péex gaa nga jàmmalaay jàmm jaa nga jàmmalaay mbégte maa nga jàmmalaay tey jii kon mu ngoog fii la réew mu toll di tëj seeni kay jaa ngeen jëf